auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaamu ala manbai lfadaili wanniam markazi almaani walmaarifi walxikam majla asmaai wa sifaati wal afaal wa ala alihi wa ashaabihi ashaabi almajdi wa samaati wa nawaal mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi nuyu mboolem ko xam ni yaa ngi jàkkaarloo ak ñun ci site bu mag bi di GFM tabarakallahu euh, mooy site bi nga xam ne incha allahu taala lépp ci biir weeru koor bi dañ ci ànd ak yéen dara du leen ci ump incha allahu taala daañu ko def ay thématique thème bis bu ne daañu jël benn thème waxtaane ko ak yéen béggal leen ci ci ñi nga xam ni ñu ngi safoo site bu mag bi di GFM point sn incha allahu taala mbokk yi incha allahu taala tey jii xam nga thème bi ñuy waxtaane euh, mooy daraja bi nga xam ni weeru tedd wi di weeru koor am na ko daraja bi nga xam ni weeru koor am na ko mooy shahrul mubaarak weer wi moom la ñuy wax shahru ramadan ñu ni ramadan mooy li nga xam ni dafay lakk baat bi ci lugatul arabiyya sax mooy Eh, nga xam ne dafay lakk ay bàkkaar lakk gi muy lakk ay bàkkaar ndax nit onze mois tooñ nga ci tooñ yàlla rëcci rëcci bàkkaar yaa ngi ci am benn weer yàlla ni la weer wii kat dama bëgg diggante bu waxtu wi jotee ba ci waxtu we bu lekk bul naan mbokk yi ñàkk lekk ñàkkoo naan yaa nga yar sa bakkan waxoon naa la ni la daraja bi nga xam ne weeru koor am na ko bakkan mooy dugal nit ci lu mu bëggul ndax yëg yëg yi ci bakkan lay bàyyi ko war yàlla bi mu bëggee yar bakkan daf ko xiifal ndax nit saa yu xiifee doo xalaat mooy yàlla soo lekkul doo xalaate wax lu bon ndax sa gémmiñ war ngaa xalaat ni loo ci génne lu baax lay doon moo tax yàlla ci yërmandeem gu yaatu ga ci daraja bi mu jox Seydina Muhammad ci ngëneel yi mu jox rasulullahi moom borom bi subhanahu wa taala ca la yàlla jeglee lee ñu pour yar sunuy bakkan pour ñu bàyyi ko xel pour yar sunuy bakkan pour ñu gën a bàyyi xel li ñu yàlla defal mooy lan moo tax ki nu yàlla boole te mooy Seydina Muhammad nitam ku mat insaanal kaamil ndax weer wii daraja bi mu am ñun ci yàlla Moussa bëggoon na ko parce que Moussa dafa ne yàlla nomination nomination bii nga ma jox may prophète bul fàtte ni ñun ci yàlla Moussa bokk na ci 25 prophètes yi jël premier ci 124000 yi dem na sax ba Moussa bokk ci 5 prophètes yi jël premier ci 124000 prophètes yi ñoom la yàlla tuddi ulu azmi mooy yun ci yàlla Noox yun ci yàlla Ibrahima yun ci yàlla Moussa ak yun ci yàlla Isa ak Muhammad mais yun ci yàlla Moussa dafa ne yàlla weer yi ku ko moom mu wax ko Sidina Muhammad ko moom ak xeetam mais Moussa dani yàlla sama nomination bi nga ma def yàlla may prophète boo bu la neexee yàlla nga dindi ko te boole ma ci xeetu rasulullahi pour ma mën a woor weeru koor kon mbokk yi daraja bi yun ci yàlla am waxoon ak yàlla kiroog ni woon yàlla def kàddu yàlla yàlla y dégg yàlla y dégg kaddu Moussa Moussa y dégg kaddu yàlla dem sax ba ne ko dama laa bëgg gis mu la yàlla waxoon ne ko mënoo maa gis lantaraan yi Moussa moomu njàmbaaram ndax ndax daan dégg dégg wa silta Moussa taruk njàmbaar yuñ ci yàlla Moussa dañ ko nangu sax jox ko si gina Muhammad daraja bi yuñ ci yàlla Moussa am nekk yonent bëgg dindi nubuwaam nomination bi ko yàlla defal pour bëgg bokk ci xeetu si gina ngir mën a woor weeru koor kon mbokk yi dara ji nga xam ni weer wi am na ko te mooy weeru koor ak ngëneel ak teraanga yi nga xam ni nekk na ci shahrul mubaarak loolu yaakaar naa jullit boo ko fekkee war naa yar bakkan ndax yëg-yëg yi ci bakkan lay bàyyi ko an nafsu hiya masdarul ihsaasaat émission yi ci santé ma lay bàyyi ko al atifa hiya masdarul infialaat mara yàlla indi xel teg al aqlu huwa markazu tamyiz bu ko defee boo wooree sa bakkan da ko tàggat ndax bakkan dafa mel ni ki xale soo ko ferelee rek mu fer te ci biir weeru koor ak daraja bi weeru koor am tàggat nga sa bakkan mais yar nga sa bakkan wa nafsu ka tifli in tuhmilhu shabba ala hubbi ridahi waaye wa in taftimhu yen fatimi Pape Hann la woon ak gfm point sn insha allahu taala mbokk yi suba daal ñëwaat ñu àggale waxtaan wi ñëwaat ci beneen wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu